bi nu génnee rek si élection présidentielle yi donte sax résultat bi ñu doon xaar àndul ak seen bëgg-bëgg moom Abdou Lahad Seck benn bokk yaakaar bu Touba découragé wul dafa duggaat si terrain bi dem si mbooleem gox ak gox goxaan yi mu doon jàppale si wàllu social rawat na ñu mayoon ay robine mu doon nag ay branchement yu bare si biir Touba. parce que tey bu ma amee manuk mën a jóg taxaw mën a dem ci nit ñi seeti leen loolu Serigne Mountakha laa koy sant. ndax bi ma accidenté ak tey ci trois mois kese lay yem mais bi ma jotee dafa ma wax ne ma dara duna ci jot sëñ Tuubaa la bëggal boppam dana la yëkkati nga delluwaat see liggéey moo tax bi ma mënee tuut al ah, ma mënee tuut rek ma daal di jóg fas yéene dellu ci nit ñi comme ni ko sëñ bi waxee woon. kon maa ko ci sant ginnaaw yàlla gërëm ko di sant it président de la république ci taxawaay boobu mu taxawoon sunu pegg. Laat Seck Sadaga mi ngi tàmbale tournée bi gox bi ñu naan Aliya fii de robinet yu bare la fi maye loolee waral askan wi taxaw seede. mu mel ne kon robinet bii nga xamee ne moom ngeen gis muy xele léegi yaatu na fi bëri na ci kër yoo xam ne ñu ngi ci kanam yaakaar naa ne bu bu ñu ko jot gi may danañ fa àgg. ci biir élection yi lépp lu maa doon ñu ngi ci doon dox ci biir élection yi te fas yéene ni nga xam ne noonu ñëwee gis ngir gis lii te du kër gi dong bari na ci kër yoo xamee ne yaakaar naa ne lii am na fa kon mu mel ne incha allahu rabbi si Abdoulaye Sadaga nañ ko jàppale baax mooy député Serigne Bamba bi nga xam ne moo nekk ci Touba di liggéey képp koo xamee ne yaa ngi gis Abdoulaye Seck Sadaga mu ànd ak président Macky Sall sës rikki ci moom di ànd ak moom di liggéey kon war nañ ko jàppale suñ fukki loxo ak euh, tey nag li ñu yëkkati mooy dafa fekk euh, bi ñu dem ci élection yi ñun dañoo lu ko jiitu ci parrainage yi dañoo jógoon yónni woon xaadim si la mu dem parrainer ji fu bëree baree bëri ci biir dëkk bi ba ñu parrainer quatre mille et quelques personnes lu bokkut ak bi nga xamee ne carte d'identité kayitu juddu yi xam ne defaroon nañ ko ak carte d'identité yu bees bi ñu dellusee lu bokkut ak moom parce que loolu defoon nañ ci trois mille deux mille personnes yoo xam ne defar nañ ko ginnaaw bi la génn ci après parrainage xaadim euh, si la fu bëri mu demoon fa euh, ma ne ko foo dem luñ la wax na ko noté. ñu xam lan la fu bari bi mu demee liñ ko waxoon mooy problème mu ndox. bi nu bàyyeekoo fii convoi bi jëmali ci Ndodi ay jigéen yu daan dox lu tolloog dix kilomètres wala lu ko ëpp sax doon wuti ndox ñoom de amuñu lu dul di sant. di ko sant di ko gërëm. ndaxte fii bañ fi ñëwee fukki at ak juróom am nañ ko rarant ba lañ daan woote gis ngeen forage ba la ca kaw fa lañ daan duyee paanu ndox bu ñëwee yenneeku ko bala ñu sëlma mu jeex ñu dem rooti waat ñu ngi koy sant di ko gërëm te nag ñoo ngi ci ginnaawam rek suba ba ca ngoon duñ mos a arrêté élection yi nag ñoo ngi sant yàlla bu baax di ànd ak mbégte nag di mbég ànd ak mbégte bu baax te ñun ñëpp dem nañ woote ji te ñoo ngi sa gannaaw loo bëgg suba ba ca ngoon ñoo ngi ci yow foo joxoon ñu dagg yaa ñu sàggaleeg root nag forage ba lañ daan duyee ji ndox gannaaw tey ak ëllëg mbégte rek lañ si àndal nag ah ndax du ànd see mbégte dañ daa xëy liggéey maas occas ba ñëw gis nga ni mu soree bu ñëwee dañuy boot suñu doom yi euh, fas yéene yéeg raanaama dem rooti ji luñ tooge bu ñëwee paan googee duñ si man a toogu tax buñ paree waat jéeg waate te loolu lépp laa saadaag mi moo ñu ko dindi tey jii waaw sant yàlla nag la ñuy def waaw ndax duñ dee sant yàlla tey jii dañ fi daa ñëw di ñu nax ah tey laa saagal ñëw defar ñu loo si ñëpp teg si seen bët waaw loolu rek daa doy ak sant yàlla doy ak kontaante. ci biir campagne bi ñu nit ñu fexe woon ba fexe ba am ci lu mat euh, quinze kilomètres yoo xam ne ndox la jàpp dix huit kilomètres ñu dimbalee ko waa tuuba ci ñi ko laajoon bi ñu ko joxee ci biir campagne bi moo xat ma ne leen da ngeen di bàyyi bu ñu élection yi weesoo jàmm ñu dem ñëwaat sant si leen yéen ñu voteloon waaye nag Tindodi 5 beneen état ba ngi nii fii jigéen ñi bëgg nañu yëngu si wàllu koom lu si mel ni wàllub maraîchage bayub noor bi nu ko dégtale honorable Abdoulaye Seck Sadaga si la leen indil solution loolu waral ñoom it ñu rafetlu ko ndax nag weddi gis bokk si barab bi ñu ngi si bay ay légumes si fànn bu mën ci doon ba si sax nag ki nga xamante ni mooy chef de village bi teewoon na rafetlu lool taxawaayu Abdoulaye Seck Sadaga honorable député. ndax mais bi ñu seet see avant élection yi macha allah si lañ yokk robinet bee ngeen di gis si kanam moom mii lañ koy sante di ko gërëm ba tax na tool yaa ngi développé soble bii ngeen di gis si lañ ko def si kanam lañ koy tara ak waaw dugal si tool yi ñun daal ñu ngi sant di gërëm Sadaga yi ngeen di gis moom moo ñu ko may dolli ñu ñu dolli salaat si ngeen gis it moo ñu ko defar ñun daal ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan développement bu mag ndax amuñu woon doole yii ngeen di gis ñoo ko defal suñu bopp mais lii si man-manam la ñu koy ñaanal ak yokkute di sant yit ndox ndox mi la si activité bi ngeen. jàppandal la bu baax a baax a baax ndax gis nga gàncax commencé woon na di dee mais si lañ dool robinet ba la ngeen euh, di gis. tu Tindodi dañ dafa nëkk dëkk bu yàgg di dëkku cosaan ci Touba. bon da nag dëkk yi nga xam ne ne Serigne Touba moo ko sancal boppam bon liñ ci war a ndikk a def li ñu war a ndikk def Touba Tindodi da cee war a bokk bon de ce moom mii bokk ci ñi nga xam ne ne dañoo bokk ci cosaanu Tindodi ndaxte doomu tuubaa la juddoo Touba màggee Touba ànd ak waa Touba di daan dooleem ba tey ji yàlla may ko ndoomu tànk bi mu yor bon ñu ngi ñaan yàlla ak yonent bi Sëñ Touba gën koo jàppale moo tax tey dañoo jóg ñëw sant si ñu ñu watuloon kon chef de village ñu ngi leen di sant di sant jigéen ñi di sant mbooleem fi ñu jaar ak fi ñu demagul ñu ñëw pour sant leen xool si ndox mi nuñ ko defee ci loolu li tax ñu leen sant buñ ko waxee dana jaaxal ñu bari mais ñun suñu nit dañ leen a engiré woon parce que gis ngeen avant élection jeudi boobu dajale woon nañ lu mat 3000 personnes yoo xam ne ku ne yoroon na carte d'identité ñu génne ko ñu wane ko muy bon phénomène bu bees bi nga xamee nag ne élection yi weesu na élection dafa am lu mu laaj mooy électeur la laaj mooy participation élection ñu gis ne Touba participer nañ ci élection yi participation bu am solo parce que Touba dem nañ ci trente sept mille et quelques voix yoo xam ne biir Touba la jóge muy ci commune Touba ñu amaat it lu toll ci euh, soixante sept mille et quelques yoo xam ne mooy département bi mu wane ne mboolem communes rurales yi nga xam ne dañoo nekk biir Touba département Mbacké te ñu doon dëkk yoo xam ne Serigne Touba moo ko sanculu waa Kër Sëñ Touba sanc ko yëpp gañe nañ ko yemuñu ci loolu mooy Touba am nañ fi trente cinq mille et quelques trente sept mille loolu dañ koy sant Serigne Mountakha sant ko Serigne Touba. convoi bi di wéy beneen gox moo ngi nii di Daaru Nayim 2 fii tamit si biir kër yi la indi ay branchement ngir jàppale population bi mu doon jàppandal lu si mel ni xew-xew bu mel ni màggal Touba. lii fi fii par rapport ak bu njëkk kenn ku ne comme ni ma koy faral di waxee rek euh, géej gi fi nekk kenn ku ne xam ne ñëpp a ñu waroon bi ñu fiy sëy si mais root nañ dañoo mais ci ndimbalu si ablaat mi ñi nga tàmbale di njoolaat loolu nag ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax kenn ku ne xam na ne euh, màggal Touba dañ fa daan am ay jafe-jafe bu baax a baax a baax surtout màggal Touba ci côté ndox. fii euh, fu ñu toll nii maanaam bu ma tënkee ci ba Euh, boobaag léegi li am war naa toll ci fukk ak juróom benn waaw fukk ak juróom benn rëbb na yoo xamante ni euh, yu yu ci doolee ko waat laa wax doolee ko waat Abdou Lahad Seck Sadaga nee na liggéey dëgg la def si biir Touba donte sax nag amuñu fi ndam mais jàpp na ni li ko fi woteel de buñ ko si génne woon si li fi président am li si des du bari moom nag nee na Macky Sall la Macky la gëm dina ko liggéeyal saa su nekk du sa a xaddi ba moo waral mu ni kat dina ko fi teewal lépp lu mu war a def mu defal ko ko si gafakaam xaaru si dara ndax moom lu jàpp di ba honorable nag ni dina amal yeneen activité ci yeneen gox ndaxte demande yi baaxe na jamono ji